xam-xam lan dalal tey euh, di leen jox rek ñu présenté wu euh, sëriñ euh, ji ngi lay ziar sëñ Modou. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Baara. maa ngi lay fay nuyoo. di siyaare xalifatul am Cheikh Mamadou Muntaxa di ñaan sunu borom kal ko tugal ko waaye di ko ñaanal mboolem jullit ji islam jërëjëf sëriñ ñu ngi lay delloowaat siyaare bi. ak teftal nañ ci ñëpp suñuy ziar di ko ñaanal xalifa général yëpp suñu borom yàggal leen fi ten ànd ak wér oustaz Ngunda aouzu billah bismillah wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki bokki téléspectateur seen zoom nga ànd ak yéen fii ci màggal 18 safar 2021 ànd kook sëñ mi aussi yéene waxtaane lu aju ci màggal gi ngi di ziar yéen ñëpp waaw dañuy wëlbatiku rek ci sëñ Modou muy waxtaan wa nga xam ne nii waxtaanu gat lay doon waaye xam nañ ne bu am solo lay doon sëñ Modou nu bëggoon nga indil nu ci borom magal gi borom magal gi lan bëggoon nga waxal nu ci waaw. sëñ Baara sëñ Baara laaj lo jafee tontu waaye laa yaa laaj lu yomba tontu. yari mbir yu xëyati ne da niro te bokkut le tax mu jafé waxal jafee xamle kañ kan la mom moy ki nga xamantene ne ma waxal bopam ne du kuma du ku duma ma ku nuy xam xam nga lolu ba ko laajee te mom waxal ko bopam dina xawa dis mom serigne bi ne mom du ku nuy xam khabat maqami an siwa baaxil karim wa innani abdun xadimul la yarim lii la sëriñ bi wax ki ma doon ak sama daraja fàddu na ci képp koo xayet yaa ngi koy xëñtu yàlla rek moo xam ki nga xayet ne moom li ma doon li taxit mu neex a tontu neex a xam le mooy ki wax ne du nu du ne diwa ko dimbale moom sëñ Tuubaa déedéet du ne maami kenn du ne bàyyi kenn du ne xaritub sàngam kenn dimbaliwu ko loolee tax mu neex a xamle yàlla rek a ko dimbali waaye ndimbal la wër na dina wërngal këpp ba ñëpp xam ne lii la waxee ne ci lañu ko dimbalee waaye dimbale na ko jaam yi walaahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri saa nafian bila dararin walaahu yàlla la wax de waxu la kenn yansuruni moom a dimbale wala xalqu fii yi bàyyiwul kenn nag bàyyiwul kenn tat ba one dana nu ma topp fil bari ci jiiri ji lépp lu taxaw ci kaw suuf si boo nangoog boo nangut sëriñ bi ci boppam moo ne ca kanam ak li alina ci géej gi ñu ne ko lu waral loolu mu ne saat nafiin bila dararin dama di bërum njëriñ goo xam ne ànduma ak lor loo tax ma ne la yaar yii moo tax bële neex naa xamle waaye bii neexut a xam ne borom màggal gii mooy ki nga xamante ne maa ngi waat ci yàlla ne ku dib jullit tey safoo julli am nga cër ci màggal gi ku dib jullit laa wax tey safoo julli nga cër ci borom màggal gi amel nga ko cër koo xam ne sunna la ñor muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa nga ko moom njukkal ko xamne alquran kesse kese la ñor nga xamne ci alquran ngay dund amel nga serigne Touba ndukal ci bes bi ko xamanteni ci rew mi ci rew mi nga ne rew mi la wax de ya xam nga dib julit wala nga dib lenen amel nga serigne Touba ndukal lol la lay wax jox la ana ba ci jitu ko xamne farata la ñor mom kenn ku ne xamne ne na awma benn bur budul yalla sahitu ana la rabbun wahidun wa anna muhammadu sul haq loola fétt na boo bu fekkente ne sallallahu alayhi wa sallam moo la ñor te yow mële di ma dig wala nga di ma gis wala nga di ma teewlu yonent bi ñor la war ngaa bëgg li sëriñ Tuubaa sa waaja yow mi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo la ñor ana loolee lu mu bi yi nat kursu yi naan ci la bokk ak neelaat naa la sëriñ Tuubaa ne kooku génnee leen ko ci bokkul ci kursu bi xadamta bi taqdimal ya rasulana wa hustal ula ya nasir al haqq bil haqq bu fekke yow sunna la ñor yow man nga japp ci lolu ki sunna ñor la wax asun ki nga xamne di day sunna ko kooka mom lolu ki nga xayante al qur'an kese moko konyor. ñor nga xamne ne yow mom dara mun wax lo deg mun lo wax lo gis lu qur'an yow deggal lu shaykhul khadim wax sa tere bobu nga xamne kitabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi xam nga loolu wa narju bokkul ak wa arju wa narju nu yaakaar kon boole na ka nga xam ne day du alxuraan bokkul ak wa arju rahmatan yërmande dunya adduna ak alaxira gën jëm kon ki nga xam ne alxuraan rek noo ko ñor amel nga Serigne tubaa njukkal bu fekkente ne addis addis سيول خديم بامني القران مو جيتو داني اك اديس اك ينن يا توب سن الحديثه والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب كون كيغا خاني اديس كو نيور كوكا يو سيول خديم جوخنا لا سا بايور دمال فيا كوجي كيغا خامني سي ريو مي لا نك تي اب جوليت لا ياي ناخ امنا ньо خامنتيني فيتو ونو فن واي تن اي جوليت لن نينا لين بو فكي ديغ نين ما ولا نين غيس ما نلن وورن شيخ القديم مي لامو لن لا لا نين كما نا فاي لودول وا غور سيغ توبا لنن لو نين داف رك وور نين سيغ توبا اك كوما دون ونجيهم وافهم والتو بهم ولا تواغسهم بكسر سن بهم فانهم وين عصوك يا اهد لغفله لم يشركوا بك اهد وانهم ابدانهم لا تقدم على بلائك لدعو يسهر قلوبهم لست تميل ابدا ilaa siwaaka hahuna suma xadaa xam nga kon kii bu fekkee ab julit nga moom kenn desut bu fekkee ab tiijaan nga ab tiijaan nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ca nga càllaloo ja Seyd Alaaji Malick si mu baax ma sëñ tubaa nee na la yow murit bi koo kee Cheikh Ahmad Tidiane yor baax na jàppal bu dee ab xaadir nga laawa ab xaadir nga amel nga sëñ tubaa yëg-yëg moo tax ñoom ñi gore am lu ñu yëg ñëw nañ te du noppee ñëw mukk fakkunu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida shawal intama ila jaylani aw intama li ahmada tijani aw li siwahuma min al aqtabi iskulum qatan ala sawabi kon lu des bu fekkente nag koo xam ne yàlla la bind loolu nag moom daa généraliser koo xam ne yàlla la bind nga di mbindeef boo wéetee wala nga wétlu ko xalaatal te sëñ Tuubaa mi jàmm gi mu la bëggal ak texe gi mu la bëggal yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al wara yaa haadiyan rada mu kii nag ku mbay yow buuri buuri yow mi ne ca gàmmu naa ya yërëmal mboolem loo loo bind wax dëgg fa yàlla kii boo ko santut nag maanul ci mburam kii boo ko santut ne ko yawa gannaaw am na lu la jàpp yow ba mu ba sa xol mënta rafet nga ne ko yawa te ko xoolal كيف كو خامتيني لي سول خديم لي بيت الاسلام نيخولا ياو ديغو القران ديرت ولا تكتم الشهاده ومن يكتم ومن يكتم الشهاده فهو اسم القلب يلا نينا بولين نيبوت سيد يو رافيت يي يلا ني كيب كوي نيبو سيد سو رافيت بو خول كو خولام نول كوكو بامل كور مبين ولا نول كوكو ba melni ni wala soxora soxora soxor iñan ba iñani yalla ne ko ke nga xamne ne la wax jëfi waju bax ak ligi waju bax jokkal sëñ touba jokko ja sëñ touba dun la baye nga dem sha allah amna solo leral yi ci kan moy borom magal gi yalla nu yalla fayal wax ji sedd na xol an nak dal am an naa ki te borom xam-xam koy wax te kuko tatan jariñu euh Gunda ñi ngi lay ziaré bu baax yow da nga bok ci tanéfu Serigne Touba yi ndax so démé bi nga xam juma ji nga xam Serigne Touba khadim rasul moko reddal bopam muy genn nga bok ci ñi nga xam ni tay ji aljuma su di fa ci sa xam-xam nit ñi diko kon da ngay japp man damay japp ne tanéf nga ci tanéfu Serigne Touba yi yal nañu la fayal yal na yalla doli teranga ji euh, oustaz lan nga nu mëna waxal ci bisu magal gi 18 safar lan wax lan nganu ci mën a waxal. jërëjëf sëñ Baara laaj boobu boo ma ko laajee dina ma neex lool ma tontu ci ndax moo waral sunu ñëw nii di jaajal sëñ mboodu ci waxtaan gi nga xam ne nii waxtaanal nañu ko ci tànneex bi muy Seexul Xadiim mi nga xam ne dafa daj kàpp àdduna ci ay xéewal nga xamne moy borom njariñ lu àndul ak lor sëñ bara bés bi di bésu magal bés la bo xamne ci la shaykhul khadim waxon ne kharajtu yawma sabti thamina asar li al mukhtar fi sahri safar bés la bo xamne ni bésu gaawu la génn dem ci tukki gogo bés bobé la wote ngir ñu sant liko bur bi subhanahu wa taala ca waxtu Fuk, fukk ñaa fukki fukki waxtu ci 10 heures la woon gi kon ñu ngi ci ay waxtu yu néew ñu yegg ci waxtu woowee fekk ay waxtu yu néew dana yegg ci waxtu woowee nga xam ne moom la génnoon moo tax ñu ci bari waxtu koy bu baax baax di ci ñaan loolu lu jara xam la mooy bi bu suba di centenaire itam waaw centenaire bi ku ko fekkee war ngaa sant buur bi subhaanahu wa taala ndax génération bi yaakaaruma danañ ko waat kon nañ sant buur bi subhaanahu wa taala li tax ma nag ma wax ne centenaire la dama ciy leeral tuuti Seyxul Xadim 1921 la dem ca la la woo la la la la def màggal gi maanaam sant buur bi subhaanahu wa taala ca njaareem ca njaareem la ko njëkk 1921 ba mu ko defee na mu ko defee ba noppi dane bu yëg seetee na ko na ma ñëpp santle sama borom ku ko santle borom bi na mu ko bëgge bu ëllëgee yowmal xiyaam lan ko fay seddu du la ump yàlla bu mu ñu ump 1921 ba 2021 ci atum nasaraan ñaata ñaata at la du centenaire. kon ñu ngi ci centenaire bi. loolu lu jar a xam la. waaye itam bés bi bés la boo xam ni bés bu màgg la ndax àdduna jépp bés bu nit ñiy teewe noonu amut ndax màkka bi nga xam ne aj la nombre bu toll noonu du fa teew loolu bin xaymaa xayma nan gis ne lii teew fii ëppe na ko mot na ko ñaar kon ci àdduna di suñu bés bu boo xam ne nii toll na noone ci mbooloo ma fiy teew bésu màggal nag sëriñ Touba wax na ni waa même waa àjjana dañuy yëg neexetu bi neexetu bés bi àjjana amul bés ndax amul weer ak jant waaye bu yëgsee danañ ne ca àjjana danañ sentir bés bi ci neexit wi boo laaj ne bés boobu waaw bés bi nag ana li xew ñu nekk bésub xaadima rasul la kon bés bi bés bu màgg la bés boo xam ne bés bu kawe la bésu sëriñ Touba la boo xam ne ñu ngi koy sëriñ Fallou moo ko njëkk a woote fii ci Touba bi mu ko wootee fii ci Touba ñu fiy ñëw ndax taalibe yi mën di nemmekonte ak liggéey bi fi nekk ñu mën di teg ñu di war ci teg bët ak développement bi ni mu war lépp nga xam ne sëñ Touba yaxaloon na ko ci mille nga 1887. ndax 1887 la def Matlabul ni muy plan dëkk bi xam nga booy tabax da ngay def plan booy tabax sa kër da ngay def plan ba mu defee plan 1887 ca déwén sa 88 mu daal di sos dëkk bi kon xamoon na ne ci fii la jëm. te it noonee lay doxe muy dëkk bi noonee lay doxe muy ci ndox mi tudd na ko tudd ci leeraay bi tudd ni mu war a naate ci comme àjjana tudd ci xam-xam ba gis nga fi mu nii rek xalifa bi sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te gis nga université bi ak daara yi nga xam ne nii moom taxawal na ko kon la bës la boo xam ne nii bës bu màgg la bés la boo xam ne nii bu yegsee na ko waa àjjanay santire ken ku ci ne ci aduna war na koy yëg kane ci lalam tëdd mënta jóg war na koo yëg ndax wax àjjana ñu ngi koy yëg ka nga xam ni magé na ba jéegoom tankam a yegg si war na koo yëg te bok na ci la leen la nga xam mo leen koy yegal moy li ngeen di def woné ko nit ñi gis xéewal muy lo xam dana dundal sen. ruu ndax lii ci ruu la bokk boo gisee image mu rafet lan fay def rafet neex yow sa du sa ruu ma ngi cay dund waaw xéewal ya nag boo ko jotee yaa ngi dundal say yaram kon màggal ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari cant la waaw sant le borom bi ci ruu yi ak ci ci yaram mooy lii ñuy def bernde yi bernde yi bernde yi ruu daa am benn yaram yi am benn ruu yi mooy lii waaw alxuraan xas zikrullah yeeg ah. ak lii image yi ñuy wone jërëjëf <laughs> leer na nañ leer na nañ jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaka yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ndax euh, centenaire bi su tombeek nu ne euh, ayuk sëñ Muntaka la mu nekk ka nga xam ne nii ko naw na waajuram yi na maamam tegu na fi mu war a tegoo ñun murit ñu koy sagoo ñun jullit ñu koy sagoo yal nu ko yàlla fayal sëñ Amdi Modou Mbenda yal na fi yàgg loolu te wér sëñ Cheikh Jëmm Fall yal na yàlla yokki leeram taas nu ci barkeem yal nañu yàlla fayal maam Cheikh Ramé Fall Lamp Baal Mouridine eh, xam naa waxtu xaj xoj nañu duñ def lu dul joxe rek nu tàggoo eh, sëñ Modou waxtaan wi neex na waaye du doy eh, ñun nag wax dëgg yàlla dafa am fu nu la xamee. muy ci séeréer gi te gars yi xam naa ñu ngi koy xaar waaw xam naa soo mënta may taalif bi xam naa rek nga wax ak ñoom rek. <laughs> xam naa xam naa taalif bi moom du fi mën du fi xaj ndax waxtu bi jot na waxtu timis te boroom dëkk bi yii di màggal gii juulee tax ay tànkam nooj borom dëkk bii di borom màggal gii jullee tax tànkam nooj moo tax ma ne kuy béggee julli ku ne war ngaa bëgg Sëñ Tuubaa sunnaa tax dajjal fuur mbuur a jóge ci fuur waxuma tax sëñ Tuubaa daj loo xam ne mbuur julli da ndar keneen dootul julli wala kus rukkon bal moo lay lijjanti moo lay moo lay gàggante ku sujjuut ku sujjuut falal lay fare waxuma la tàlli foofee ngay banku bu julliwutoon ndar maa la wax ne ñun ñëpp bay yàlla na la yàlla xiiwaleel nga dajeeg tubaab bu yof waaye lu mun diis diis ngay buum waxee ne jëg tu magala ne xaadim rasulo o teela yu koy reer nun séeréer a garda ngee sit bi seen suuf njaareem la dëkk njaareem maa gënu nda sëñ Tuubaa kaa re inoor na re inoor na gànnaar re inoor na euh, nu maagole le 11 novembre 1902 te sëñ Tuubaa gàttu a reef sanna a daaru salaam ñaar a jeg maaga ñaar ɓetu tadik a daaru marnaan a jeg maaga 6 mois a nu ndoo na a xooya sëñ Masamba Touré fa sooñ ma fa sëñ Mor Mor aroga santay nuun yonente ne santa nuun um gidma nuun 1902 Sëñ Tuubaa refa njaarem a ret Tuubaa Tuul ay nor Tuubaa Tuul Xaadimu Rasuul a ret Tiwaawan no men Sëñ Marouba Gueye ay nor maaga le 7 juin 1903 a reto Ndar Buur Sine Coumba a soɓna Ndar a seeɗa in ma seeɗana kin mo a lay o xene gime ken gimna buge ke in bugna in mboge me i ino tooñano ta xa taxolaye ta laytirooga tax waxtu yala tax ta xam seedong xadna seedong alaxira aduna wërngal képp bu Sunkuma Ndoofeen képp moo am ñaari magal bii jaxaw bii daaru marnaan buur yëpp fàtte nañ leen xaadima xotten magaret gannaar attaar jaraare ya tunu muusin sar saara ay noor maagat ceen jolof ay noor ceen jolof ay noor maaga belel tëski kat balooji Touba Darou Alimul Khabir o Mbakke siwol xey ɗo maaga a garo ndulo a julit maaka takusaan aynor maaga gar patar a sambe o ten Khadim mustafa a gar gappo a a ramu masiri ila jurbel lada la sasin law ayano sarrama fi seyri ma ramu fa zeyru mawtun ala man nazo wa azan wa annahu li ibqa'un wa ikramu jarama Khadim a garɗange faax kede wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tamit na Sëñ Tuubaa jof na Sëñ Tuubaa fod na Sëñ Tuubaa Cheikh Rafal 2000 Cheikh Rafal 1915 a Njaareem bambaat coori fa gay macha allah am na solo am na solo lool macha allah nit ñi seen xol sedd na bég nañ euh, di wax rek euh, wëlbatiku ci oustaz Mounda oustaz Mounda looy tëjee tàggatoo ko euh, téléspectateurs yi nii seetaan. waaw tàggoo bi nga xam ne nii moom la ñuy tàggoo ak téléspectateurs yi. Eh, ci bés boo xam ne nii bés bu màgg la xanaa di leen jox cër rek ci wax ni sunu kàddu yi ñu yëkkati fii ak image yi ngeen ñuy gis yal na doon seen pajuk aajo ci zahir ak baatin loolu rek la ñaan ci bés bi képp koo xam ne yaa ngi gis suñu image mbaa suñ dégg suñu kàddu yii yal na yàlla faj say aajo ci zahir ak baatin ci bésu bar borom Touba bi sëriñ sëriñ Touba Xaadimu Rasuul bés bi nga xam ne nii wax na ne ci la sante suñ boroom ci bés bi sant na ko sant bu wër waxu la ñëw leen sant sant ma waaye dana ñëw leen ñu sant suñu boroom ndax man cant gi nga xam ne nii moom lay sant suñu boroom lot mel na ni ko ci lot ndax yéene ja kon looloo tax mu woo ñépp yéene leen xéewal yi ne nan leen ko sante buur bi subhanahu wa ak yokkoom sunu yokku la ci bés bi wax na ne moom Sëriñ Tuubaa weer wu ne suñ borom da koy defal ay may waaye nag rawatina ci weeru safar rawatina ci weeru safar te fu mu yokkoo ci weeru safar ñun yokk nañ kon yal na yàlla yokk asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Modou Bopp euh, jërëjëf euh, oustaz Ngounda Faye ngeen dégg waxtaan wi mooy liñ leen jëlale woon li nga xam ne mooy suba la màggal nu fas yéene wéyee léegi yéen li nga xam ne mooy programme mu màggal Touba 2021 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sargal di jaajëfal équipe technique bi nga xam ne ànd na moom sunu man Cheikh Tidiane. Euh, Sène euh, ki leen nekkaloon ci seen microcentral bi muy Baara Sène euh, di jaajëfal aussi ñi nga xam ne mooy correspondant yi nekk au niveau de Diourbel muy Mariama ak ki nga xam ne mooy Ndeye Awa di jaajëfal aussi suñ correspondant yi nga xam ne ñi ngi nekk fii ci Touba di nekk ci terrain bi di ki liggéey ku ci mel ni Maam Diarra ak mama ak Ndeye Fatou Ndiaye di gërëm aussi Alassane mi nga xam ne mooy directeur nekk fële ba Guinée ak di fa def reportage yu am solo ci màggal màggal gi di jaajëfal suñ correspondant bi nekk si Ziguinchor aussi euh, ñi ngi gis image yi ni ngi gis information yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne euh, ñi ngi ñun ak yéen la euh, ba màggal gi jeex màggal gi sax du jeex ba màggal gi fanu màggal gi mat nu àndandoo ak yéen rek continuer programme bi di leen jaajëfal bu baax di wax sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér jërëjëf sëñ Touba